daa jëf mbokk yi seetaan leeral TV ba tey ñu ngi jër na set fois-ci ñu ngi toog ak ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Tidiane Thior nekk imaamu dëkk bi fas yéene waxtaan ak moom incha allahu rabbi ci li nga xamante ni moom moo ñu fi indi di euh, soxna si nga xamante ni moom mooy Adji Sarr Cheikh Tidiane salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa Djirnda aha liñ mën a wax mooy li ñëpp wax rek ndax alquran moo wax ne wa ma shahidna illa bi ma alim na maanaam li xam ci dëgg moom la ñu seede te foog naa ne ki tax ñuy wax suñ doom la suñ doom la ci lépp loo xamante ne doom loolu lay doomee doonee doom ci waayam rek wala ci yaayam kon nag mën nañu wax ne mbir bi mu amee ba tey li méttee waa Sénégal yépp noonu lañu ñu méttee ci diine ndax am na loo xamante ne bu ñëwee ci diine daa daa mel ni maanaam loo xamante ne day yàq askanu nit ñooñu ndax xam nañu ne doomu aadama sax alxuraan dafa wax ne maanaam ñaaw na ci nit ki nga wax ci moom loo xamante ne amul te xam nañu ne waa il yépp maanaam di ko dalee ñoo jot fayaa ko ñëpp ay jullit lañ. mu am nu ngeen yare ki nga xamante ni moom mooy aji Sarr yow nga nekk ci dëkk bi xam ko bu baax xam ay jikkoom mën nga ñu ñëwul tuuti rek ci yow ni ko xame xam naa ko sax foog naa ñi fi toog ñëpp dañ koy sedd ndax ki ko yar maanaam maam bi njëkk a wax sama yaay la te foog naa dëkk boobu mu ne waa kër googu ñëw bokk benn baay man mi wax nii. suñ kër ak kër ñoom ñii élage bi ñu wax benn kër gi rek la kon nag bu ñu waxee ne élage moo ko yar maanaam mooy ne maa ko yar rek ndax man néegu alaay laay toog ndax alaay sama kilifa la kon li ma xam ci moom mooy xale boo xamante ne nangu nañu yar ko nangu nañu yar ko ci diine nangu nañu yar ko ci njàng te loolu la fi nekkee woon maya fa la tàmbalee njàngam maanaam primaire am jóge foofu ñëw fii collège foog naa ñu jàng français ñoo gën a xam loolu waaw léegi bi mu ñëwee fii nag fii la départ njàngam ci collège ba foog naa dem na ba troisième léegi waa wala quatrième ci la bàyyi nag dem Dakar kon nag xam nañ ci moom loo xamante ne ñiy wax ñoo xam ci moom loolu waaye ñun li ñu xam ci moom mooy liñ ko yaree te liñ ko yaree mooy diine ak njub mhm. loolu euh, mu bëri ay bi mbir mi amee coow li bari lool. Euh, ñu am ku nekk ak ni ko dundee euh, deñ dégg nañ euh, chef de quartier léegi ni mu wax ne noonu la ko méttee yow it bi nga déggee coow li nan la def. waa ni mu ko méttee rek la la ma méttee ndax waa il gi yëpp kenn ku waxee rek maanaam kenn nit bu waxee ci il bi mm-hmm. maanaam ñëpp loolu la ñuy wax ndax alxuraan moo wax ne innamal muminuuna ixwatun fa aslihu bayna axwaykum mm-hmm. kon nag ñu ñëpp ay mbokk lañ. bu ñu yemoon ci cadre bi nga xamante ne mooy chef de village mm. li mu wax doyloon nañ ko te lépp loo xamante ku ku wax ci ginnaam loolu rek lay wax kon nag ni mu waa ni mu waa Sénégal yëpp noonu lañu ñu méttee ndax kàddu la boo xamante ne day dem bi ci ay setam mm-hmm. te loolu moo gën a ñaaw liñ mën a wax nag mooy Sénégal am na yoon xam nañ yoon mm-hmm. na ko yoon topp ba ñu xam fi dëgg di féete. te ñu ngi ñaan dégg boobu fete ak ñun mm-hmm. incha allah tuuma doon lu doy waar doon lu lislaam euh, tere aussi euh, bi mbir mi amee ñu bari di yëkkati ay tuuma di teg ci ndodd ki nga xamante ni moom mooy aji saar ñeen ñi sax nee nañ ay mbokkam lañ xam nañ ko alors que dégg na dégg nañ chef de quartier chef de village li mu wax ni ñëw ñëpp xamuñu ko euh, lan nga ñu mën a wax ci ñooñu nga xamante ni ñu yëkkati ay tuuma di ko teg ci ci ndodd Adji Sarr. waaw ñi wax nag dañ koo xamul rek. ndax alquran moo wax ne bi sa ismul fusuqi baadal iman maanaam ñaaw na ci deru nit ki nga wax ci moom bi mu fekkee ne moom jullit lay pare nga wax ci moom loo xamante ne du dëgg maanaam ay kaddu yu ñaaw te ñun ñi ko xam duñu wax ci moom loolu kon ñoom ñi nga xamante ne ñoo ñoo njëkk addu di wax loolu mën naa ne ne ñoom ñoo xam beneen aji waaye aji bi ñu xam fii nekkul ci loolu lu ñuy wax ndax nit koo gis rek am na doom wala boo amul doom sa mag wala sa rak am na doom boo xamante ne tollu na ak moom te buggoo ku yàq sa doom wala ku yàq loo xamante ne taq na ci yow kon nag liñ mën a wax mooy képp ku képp kuy wax waxal loo xam boo xamul ci moom nag nga maandu mais ñi xam ci moom nag ñu ngi wax liñ xam ci moom te mooy liñ ko yaree moom nitu nit nitu nitu jàmm la nitu diine la ndax mooy li chef de village njëkk a wax rek maanaam li ko dalee ñoo jor ba fayaa ko li ñu xam fii maanaam benn diine rek moo fi am te mooy lislaam te comme xam na ne lislaam mooy jàmmu rek jàmm boobu lañ xam ci moom. ban message ngay lancé askanu Sénégal ci mbir mi. ñu ngi lancé message boo xamante ne maa ngi koy njëkkee ci man mooy képp koo xamante ne yaa ngiy wax waxal lu mën a jëriñ nit ñi boo ko mënul na nga bàyyi. booy wax encore na nga wax loo xamante ne buñ la ooyee suba ne la yaa waxoon lii nga mën a delluwaat ci loolu ni ma waxoon lii te muy dëgg ci yow ndax alquran moo wax ne wax leen dëgg fépp fu mën a doon rek na ngeen wax dëgg yonente sa alayhi wasallam waxaat na ci beneen xadis ne waxal dëgg fekk bu fekkee sax ne li ngay wax ci yow la ne waxal ni maa ko def rek ndax dëgg du dëgg maanaam dëgg rek la la mën a doon maanaam du passé dëgg kon nag li ñuy joxe message ci loolu mooy ñiy wax nañu wax li ñu xam teg ci encore comme Sénégal li ñu xam ci moom mooy jàmm jàmm boobu nañ ko doxee ba mbir bi ñu xam fu muy féete ëllëg. jërëjëf mbokk yi dégg ngeen imaam ni mu ko waxee noonu wa ma shahid naa illaa bi ma alim naa yaakaar naa ne ni mu ko waxee seede na lu nga xamante ni xam na ko ni ko chef de village bi defee. lii lépp ngir rek mën a indi leen li nga xamante ni ni ma ko waxee woon ca njëlbeen lu leer ci li nga xamante ni moom mooy aji Sarr